ñun ñëpp xam nañ ni feebar bi dafa andi ay jafe-jafe ci wàllu dem beeg dikk bi gis nañu aussi ci fan yi ñu weesu immigration clandestine commencé waat immigration clandestine dañ ko war a xeex nañ ko war a xeexee développement bokk na ci parce que ñun on a une population très jeune population boo xam ni dafa informé li gën mooy ñu fexe ñi nga xam ne fii la ñuy juddoo mën a tekkee fii

ñun suñu bop fi ci walu Afrique même ci biir Sénégal amna ay jafe-jafe diggante Sénégal ak yeneen wéer yi parce que ak yeneen réew yi parce que fièvre be ko andi wax nañ leen fokk ñu continuer nak légui toogaat waxtaanaat xol la nga xamni fièvre bi taxoon nañu def ko té ñu mënon ñu mën ko nangu tay ji ak fi Sénégal tollu ci fièvre bi ak ndam yi ci am ñu xoolaat nu ñuy évaluer situation bi pour permettre ñi nga xamni wa waa Sénégal lañu di mëna dem. di mën na ñëw loolu aussi nangul nañu ko dinañu toogaat te du yàgg waxtaanee ko pour xool sur le plan pratique ni ñu koy defee.